ngay dem defi ji fulla ci benn semaine wala un mois max nga ñëw takk indi sa biir kër ndax da nga xam ne ni kilifa nga ngay bañ ko la yeb mais léegi lan la ñuy rendre lan la ñuy kii sama jëkkër de Facebook am laa ubbi gis mu yónnee jigéen message sama jëkkër de WhatsApp am laa ubbi gis mu yónnee jigéen tout le temps même euh, wax yi ñoo ñëw man comme que damay yëngu ci wàllu société damay faral di liit ano yu bëri ci group yëpp mais tu te rends compte que ni ñëpp femme yëpp ñoo bokk même problème sama whatsapp bu jëkk laa bu fekk mu yónnee diw photo wala fu diw yónnee ko photo wala ñoom ñaar ñuy génn sama facebook bu jëkkër donc ça veut dire que réseaux sociaux yi day ñëw lu baaxee bari bari ci cause yi nga xam ne ne moo waxal tey ji jalousie bi di gën a yokk moo waxal divorce yi moo waxal aussi euh, séparation yi nga xam ne ni même bu ñu sax ay euh, kii du euh, sax ñaar ñu marié mais ay ay ñaar ñu génn lañ donc réseaux ci looy bokk beneen bi mooy manque de manque bi nga xam ne jeunes yi am nañ ko amuñu expérience ci naka ci amuñu expérience su sëy xam nga bu njëkk ba da nga du sëy daanuñu woon xaar sax nga nekk mag pour nga kii dañuy dañuy dañuy dañuy lay teel a takkal jabar nga teel a yor sa jabar commencé di màgg ak moom ñu léegi d'habitude dañuy teel dañuy yéex a sëy ba pare góor ñu yéex a takk léegi imagine koo xam ne ne trente ans yëpp da koo doxaan nga xëy xëy un bon jour ne ko doxaan bi jeex na léegi ci benn jigéen bii nga yem dafay xaw a metti parce que xamul loolu. parce que habitude la ci la dafa taamu tey jii nii amul dara loo xam ne ne am lu moo ko lié ak kenn donc se dit que kii dama koy doxante su ma neexee ma làmbaat ci wet bi ba xool na amul leneen lu ko gën pour jabar léegi boo tàmbee di làmb de gauche droite gauche droite mooy waral bés boo takkee doo mun a toog man moom laa tuddee manque d' expérience sax bu doon tey dañ la teel a takkal ci say 18 wala 19 ans nga màggaale sa jabar da am expérience su sëy da ngay xam ne lii kat yenu na maanaa ci sëy lii yenuwul maanaa ci sëy lii dama ko war def lii da waruma koo def mais loolu baax na ci nana mais juste pour dire que am na ñoo xamante ne dañ leen di teel a takkal jabar mais taxul ñu yam am na ñoo xamante ne dañu naan euh, dañu naan xam nga voilà dañu xam en général bu ñuy wax sax ñun. Mhm. Euh, bu ñuy wax genre genre cause yooyu genre cas yooyu ñu taxaw wax daal cas gi nga xam ne ne <laughs> mais tey jii cas bi nga ki nga xam ne dañ ko teel a takkal mu màggandoo ak jabaram gis nga nga nga grandir ak nit ci côté émotionnel côté côté vie bu lépp daal ngeen jàngandoo ko ensemble dafa neex. nga xamal ko àddina mu xamal la àddina yéen ñaa ngeen màggan ko complicité bi am sa diggante moom même boo demee ci beneen jigéen sa dafay am tout le temps benn affaire bu lay manqué parce que kee da ngeen di wax ci biir rien que ngeen xoolante xam ngeen li ngeen di wax bokkul ak jigéen bi nga xam ne ne euh, danga nga aatee trente ans wala aatee trente cinq ans nga ko takk xam xamante wu leen génn wala même bu leen génn ngeen lu yàgg sax moo dëkk du ñu benn ba tey dafa am dépense. Ah, beneen bi aussi way non vas-y vas-y poursuis. beneen bi aussi mooy léegi góor ñi cible lañ ci ci ci jigéen ñi góor ñu am jëkkër ñi. ñu am laa ñu am jabar yi. parce que am na jigéen ñu bëri ñoo xam ne dañuy wax ñoom du ñu génn keneen ku dul boroom jëkkër. borom jabar borom borom borom jabar pardon. waaw yàlla nañ ci yàlla mucc. <laughs> góor ñi am jabar jëkkër yal nañu yàlla mucc mais gu jigéen ñu bëri yaas j'espère que bokkoo ci dañuy wax ne ñoom non rokeya mm-hmm. ah. <laughs> j'espère que bokkoo ñu bëri dañuy wax ni ñoom du ñu génn nag mukkudul mm-hmm. boroom jabar non parce que xam nga xewuñu li nga xamante ni mooy responsabilité. xaas euh, nañ ba xam luy euh, lu jigéen soxla. Mhm. mën nañ ko jottali jox loolu est-ce que c'est pas dû à ça. Euh, ci la bokk sax mais ñu ci bëri dañuy wax ni duñ la fa takki appel. Mhm. duñ la fat non seulement ils sont borom jabar yi duñ la fatt ak ak appel te en plus woote comme ni par exemple ak gise gu ñàkk fayda gi nañu di dem fii kooku le temps mi ngi sóoraale jabaram mi ngi làkkatu donc benn moment da ngay xaw am benn liberté bi côté finance tamit financièrement tamit moom dina la ci mën a jàppale lu baree bari. parce que en général dafay arrangé ko jigéen ki bu fekkente ne moom tamit dafa bëgg liberté. dafa bëgg liberté dafa bëgg xàppi. freedom moom day soxla koo xamante ne maanaam 19 heures mu daw gaaw ñibbi. exactement am na ci ñoo xam ne ne asma ah, comme par exemple dañuy xool ki nga xam ne ne lépp ma sotti. ñu ciblé ko ne kii jëkk jëkkëru diw la mais il faut mu am ko. mais pour revenir à la cause euh, c'est une question pour les hommes xam naa pas Assane j'aurais besoin aussi de ta participation <laughs> pourquoi doo ci wax lu tax ñi au fait da ngay gis lu ci ëpp violence dafay daal di jalousie bu ëpp bi day jur violence violence yi ci góor yi lay njëkk tàmbalee mhm. la plupart du temps mhm. bien sûr on sait que certaines femmes mhm. dañuy dañuy attaquer balaa nga leen di attaquer mais ça vient plus des hommes est-ce que c'est un c'est un motif la jalousie est un motif pour que góor yi di mal comporté wu ak seen soxna <laughs> mais am nga soxna. kii moo koy traité xaw ma dara. mais léegi da si jox sa xalaat bu gàtt. mais de manière générale de manière générale. time is running away. oui waxal. nee du ci débat. non mais après il a ses raisons aussi donc mu as as li nga wax noonu lu am solo la déjà man avant may ñëw sax ci dóor gi góor ñi di dóor wala genre yooyu man damay ñëw ci ñun jigéen ñi la fee ñuy xeex suñu biir ndax góor ñi. sincèrement yow sa jëkkër day doxaan nga fekk ji sa sa sa gelu jëkkër di ko dóor alors ko yow ki nga war a waxal je pense que mooy sa jëkkër borom kër la amoo pour dem fekk jigéen di ko dóor déjà foofu wàccee nga sa personnalité xam nga dignité bi nga xam ne ni peut-être ak tuut amoon nga ko dañ na ci bëtu ndaw si yebeel dugg na seen diggante ki nga war a waxal mooy ki nga xam ne moo la fa bàyyi dem dem di doxaani amoo tey pour di xeex ci mbedd mi dem di ak ji jigéen wala woo jigéen di ko saaga ndax lan sa benn góor loolu aussi il faut ñu xam ko beneen aussi mooy góor ñi doxaan leen na bu leen neexee kenn mënu leen ko tane mu yéen a moom seen poche moom seen bopp non mais non sérieusement nañu doxaan mais nañu takk xam nga lan laay bañ relation à durée indéterminée di doxaan jigéen rek mu tëw am àpp yow ki nga xam ne ne yow yaa génn jëkkëru jàmm sax loolu yow yaa ko war a bañ dafa may doxaan moom ki mu respecté mi ngi ci biir këram mu teg kooku mu ngi koy dundal dëkkoo ko dëkkal ko donc man mi nga xam ne ne àtte ah, man lay génnal du ma nangu nekk fawkaayam na ma takk mu teg ma ci condition yu leer bu ñu daal di tàkkalikoo ci jàmm mais jalousie daal instant bi mooy tas sëy yi damay soxla participation Yacine ci ci ci thème jalousie bi nii alors est-ce que déjà t'es une femme jalouse euh, comme tu euh, degré de, de jalousie bi par exemple euh, su fekkee da nga nekk ak nit nga xamante ni nit buy communiquer la nit kuy jànkoonteeg ay nit ñi surtout jigéen je pense que foofu enfin d'accord mën nga fa jalouse si tu veux mais pas excessive mm-hmm. parce que da ngay détériorer sa sa sa relation euh, ak moom maintenant la jalousie d'un homme à travers une femme c'en est une autre go de nature dafa jaloux. Mhm. moom bu la nobulee sax laa la wax te ngeen nekk en relation na la gis ak keneen sax xol ba bita gaz na. <laughs> non c'est c'est humain quoi la jalousie c'est humain mais après jaloux ba di jur ay dóor loolu par contre non. ay saaga parce que les causes. non là je ne cautionne pas ca saaga sax am na nooy waxeek man sax ma mettre la de côté waxuma la nag ay dóor on doit pas le cautionner dans dans une relation. après euh, je peux pas trop avancer là. mais tu tu as parfaitement raison gis nga pour man euh, solution bi bu waxtaan la déjà. Mhm. ak euh, complicité di nga couple confiance mooy base bi. tey ji boo takkee koo xam ne ne la la mu takk la seen génn yéen ñaar dèjà da nga ko doon fiire ak diw wala koo xam ne ne ba ngeen di génn tout temps yaa ngi dégg da doon génn ak diw da doon yooyu bu la takkee tamit yow ku lu nduru nu nuyoo ci sëy bi xaw lu feeñ ci sëy bi nuyoo woon ci dañ ko fayu mm-hmm. donc ça veut dire ni xamoon nga ni diw à la base moom ñii la meloon mm-hmm. donc yow bu ba nga ciy dugg te fallait nga xaar loolu tamit nit si si si sa nit ki moom dina continuer doxaanam nu mu daan doxaanee léegi nag man damay xale jigéen ñi rek déjà euh, jalousie maladive c'est pas bien. Mm-hmm. dina dina tax nga aigri dina tax yow tout le temps ngay misère dina tax nga mu day indi migraine tout le temps bopp dafay metti doo xam lan moo la dal il faut ñu arrêter di nga góor bu yàlla bu la nattoo góor boo xam ne dafay dafa mel noonu maanaam dafay doxaan rek boo munee toog sëy toog a sëy ndax sa njaboot. toog a sëy ndax ndax bon da nga war a sëy boo mënu sëy demal. bu ci xeex. waaye demal ba dañ la dul nga dem. wa si non ah, man lu ma mën a supporté la ah, ma nangu benn góor di ma teg guwaat li nga mën a supporté <laughs> di la teg lan nana guwaat non sérieusement parce que yow euh, image démb maa ngi lire benn anno ci euh, femme maa ngi nuy mamiko de passage mm-hmm. euh, femme bi nee na dafa gis ci portable jëkkër jëkkër ji dafay doxaan mais guddi gi jëkkër ji non non seulement jëkkër dafa ñëw nee ko boo say jooy na nga ma ci dimbali ak wax ji daal ba pare guddi gi jëkkër di nelaw moom mënta nelaw mu fanaanee jooy mais pour quelle raison mm-hmm. xam nga donc tamit loolu amul sens yow ki nga xam ne lu moom nga koy reproché moom gisul ne ni li muy def c'est grave donc kooku tamit pour ki nga xam ne gisul li li muy def nu mu garaawee pour nga ñëw nekkoon lii ak lii dafay xaw a jafe. yenn yi daal na naa dara jaru ko ndax gis nañ xeex be xuloo bi ci réseaux sociaux yi waxante lu ñaaw li ngay gis relation yu bëri yoo xamante ne da ciy yàqu diggante xarit ak xarit mu nekk góor mu nekk jigéen am na lu bëri loo xamante ne aussi war nañ ci bàyyi xel ndax man yaakaar naa ne confiance moom mooy daw moom mooy base relation nit ki bu fekkee takk na la te amul confiance ci yow war nga xoolaat sa bopp vice versa bu fekkee amoon amoon na sax confiance ci yow bi muy dugg ci yow ngeen dem ba ci biir relation bi ngeen am ay problème ku nekk na jéem xool nu ko gérer aussi jigéen ñi nañ bàyyi di fouiller parce que bu nekkee da wër lu la naqari rek ngay gis. Ah, bu fekkee dem nga nag. nañuy fouiller à ah, éviter ces problèmes. nañuy bañ a fouillé man lu ma gisul sama bët wala lu ma amul doute ma gisal sama bët lu ma ci sori mais di fouillé sa jëkkër bu ñëwee yaa ngi ci costume ba di di sentir mais di sentir ban xeetu parfum may xëy ci sa jëkkër bàyyi fouillé fouillé bàyyi